Heavy Mess.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 la xew ca ndar romb na doy waar ab étudiant daal moo fa dóor baayam gaz mu jaare fa ñàkk bakkanam ma ne étudiant bi baayam mu ngi wuyoo ci turu aabe at yi toll ci juróom benn fukki at juróom moom daal nee nañu waxtu ndekki la étudiant bi dal di jël butéelu gaz bu fees dell dal di ko koy dóor ci bopp ba mu jaare fa ñàkk bakkanam je pas bien comprendre famille bay wax de nee ñu dañoo toog dégg bruit naka noonu ci la ñu dawee dal di gis baayu étudiant bi deret gi sangu ko étudiant bi def lu ni mel na di wuyoo ci turu seebe bi mu defee musibam ba noppi dafa daw dem laqatu ci àll bi ma ne ko doo ci de ñaaw tef boobu nag nee ñu ngi xew alxamis bi weesu ci booru 15 heures ca village bu ñu naan Pël Jos nekk ca commune bu Jama li jaaxal nit ñi nag mooy li tax ba étudiant boobu ray baayam ba léegi kenn xamu ko mais c'est honte gendarme tamit gannaaw bi ñu ko dàqee dàq gu yàgg ba mujj koo teg loxo ñoom tamit bi ñu lankete étudiant bi ma ne furas dalli xëddeen ba léegi étudiant bi li tax mu dóor baayam buteelu gaz mu dee nanguwu ko wax li ñu xam daal ci étudiant bi mooy lu ni mel mas na ko def frère am dal di koy asome ak brique ba mujjee teeri ci loxoy yoon ñu condamné ko ba defeere ko ci li yoon tuddee coups et blessures volontaires ay ma ni kii ma ni mu mënoon nañ koo bàyyi xel nag kii dof pilis la fu mu ne nag baayam bi mu rey mujj ñu ko denc ca armeelu lu pël yu joos moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax waa ji nag moom li mu def romb na doy waar ndax dafa sàcc fukki million ak juróom benn ba noppi dal di jël ay sëriñ ngir ñu dottal ko ki mu sàcc ba du mën a dem ca yoon nga ni. waay waay waay mim réew. waa ji gérant multi service la. di wuyoo ci turu bee moom daal multi service bi mu yoroon. nee ñu ab cousin moo ko ko joxoon. naka noonu ci la wommee lu toll ci fukki million ak juróom-benn ba noppi gis am maaman bu ñu naan essi ngir mu dottal ko cousin ba du na dem ci yoon. naka noonu ci la ko essi ne ko loolu nag manuma ko waaye dinaa la booleeg ñoo xam ni am nanu maqaamam mën laa dimbali ci la ko essi boole ak benn maaman bu ñu naan aabe ñang ba ñang dal di koy laaj lu toll ci ñenti million ngir ay sarax ay déeba déeba ki xar fa fuufa <laughs> waay waay moo tax moo loo leen téere gannaaw ba mu ko booleeg boobu maaman ci la ko boolee tamit ak beneen maaman boo xam ne li muy liggéey mooy dal di jël xaalis yokkal la ko ba mu bare bare bare naka noonu ci la maaman bi daal di laajee waa ji lu toll ci deux waay waay waay waay waay waay te ma nekk sëriñ li doy war nag ci mbir mi mooy ak sëriñam yooyu yëpp mu ut yàq ci lu toll ci sept millions terewul police nee na ko niib jàppale sëriñ ya ak ah, de waay de waay waay waay Modou Lo wax nga dëgg de ma ne fi mu ne ñoom ñëpp ña nga ca loxo yoon moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax xam ngeen ne duus li mu am jéggi na dayoo moo tax kuy tabax te boolewu ci duus daanaka amoo kër li nga wax mooy dëgg li ci nemmeeku woon bu njëkk nag mooy àll ba moom daawul am duus moom daal da ngay laqatu rek daal di wàccoog sa bopp moo tax 2011 ba 2023 ministre de l'eau de l'assainissement et de l'hygiène publique ca célébration journée mondiale bu toilette ne wàllu woowu liggéey nañ ci liggéey bu am solo ba fi mu ne nii lu toll ci 5000 villages génne nañ leen ci pratique yooyu maanaam dem douche ci àll ma ne ko nag douche dafa am solo de bala ngaa xam ne kuy tabax ak loo mënti tabax te boole woo ci douche duus jar naa bàyyi xel de. dëgg du rombi mu doon seen xibaaru buzz. dégg daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz.